jëm ci mbëkk bi am nañ ci ñoo xamante ne wax na ndaw ñi jamono ji li ñu jurte wala li ñu jugte eh, bokk na ci eh, genre suicide la wala sax ab xaru la est-ce que tey jii maanaam ndaw nekk ci réew tey am njàqare am jafe-jafe réew moom nekk am fa développement wala am fa li nga xamante ne nii moo di koom bu mën a jàppale ay waajuram wala ñi nga xamante ni ñoo di ay famille wala ñi ko wër amu ko mu ni day jël géej mu jaral ko jaar ci biir ndox mi nga xamante ne nii mën na ci ñàkk bakkanam est-ce que ndaw boobu tey mën nañu jàppale lu muy def ak boo xamante ni ci xaru la jël ci buñ ko xolé ci ke ko l'islam bi wax waaw xam nga lolu mom wax ci fay laaj li tuwab naan c'est discutable masala la bo xamni masala buñu dab la kon day laaj ñu def ci ab taxaw setlu ndax la wala du xaru man ñimeuma wax ni xaru la man sama point de vue lay wax parce que buñu waxante jaar ci geej di tukki yag na fi ci lislaam boo xoolee même lu jiitu lislaam sax yonent yàlla nuux koroog ba nga xamee ni tremblement de terre boobu wàcc na ci kawam maanaam inondation bu bu metti ba alxuraan wax nañu ko koroog yonent yàlla nuux gaal la ko yàlla yettuloo ba mu yettee gaal ga gis nga kon ci la sauvé ça veut dire loolu loo ciy déggee mooy tukki dafa am ay dafa am dafa am ñetti yoon yu nit mën a jaar pour tukki yoo xam ni fi lañ ko fekk ñun yàlla moo ñu ko xéewale nit dina jaar ci jaww ji tukki loolu bi mu xewee yàggul mooy avion mm-hmm. nit dina jaar ci jéeri ji tukki mooy waruwaay moo xam fas ngay war wala nga war oto waaye nit it yàgg naa jaar ci géej pour tukki moo tax islaam moom buy àtte ci dara day xool cause yi d'abord lan moo sabab mbir mi parce que islaam du du du araamal dara cent pour cent waaye du daganal dara cent pour cent day xool li li sabab mbir mi lan la ki nga xam ne leer na ko ni moom bu jaaree ci géej gi du yegg te ba muy dem yëg xam na ni du bu jaaree ci géej gi du yegg kooku mën nga ni xaru la parce que kooku dafa jóg pour rey boppam ci géej gi waaye ki rafet njort ni moom bu duggee ci géej gi bu demee dina àgg Espagne kooku mënoo ni xaru la parce que dafa am benn xadis bu am solo boo xam ni lislaam dañuy wax ne xadis boobu kese su wàccoon ci lislaam doy na sëkk mooy inamal innamal amalu binniyaati mbir yëpp mu ngi dépendre ci yéene gi xam nga ki yéene gëm ni moom dafa war a dem Espagne ba muy jógee fi kooku yéenewul ni dafa xaru bokk te ki jël paaka jam boppam kooku dafa yéene ni dafa xaru moo tax li may wax nekkul ci xaru la wala du xaru tey situation fi mu toll encore une fois kilifa diine yi ñoom laay woo parce que ñun ci ñoom lañ bokk seen njaboot lañ yu situation yu mel ni boo amee boo ko bëggee résoudre da ngay dem ci fond problème bi lan moo ko indi maanaam nañ xool lan moo indi problème bi problème bi li ko indi njaga mooy Sénégal ñi ñiy jël gaal yi maanaam ñi gide gaal yi duñ maanaam duñ ay duñ ay tailleur duñ ay menuisier duñ ay boucher ñi ci ëpp ay mool lañu ñu ne ci géej gi daan liggéey ci géej gi Sénégal signé ay accord de pêche accord de pêche yooyu coow li ci am ñun ñëpp dégg nañ ko mool yi ñoom li ñu wax mooy gisuñu gisatuñ seen bopp ci géej gi loolu mool yi ñoo ko wax te boo xoolee reportage yi ñu ci def yëpp da koy ñun ñëpp ñoo ko seetaanandoo kon te maanaam waa waa jéeri ji mënuñoo giddee nit ki ci ci ci géej gi kon géej gi ñi ciy gidde nit ñi mooy ñi ciy liggéey ñi ciy liggéey nag ñoom gisatuñ ci seen bopp kon problème la boo xam ni buñ ko bëggee àtte il faut ñu wutandoo ci solution loolu laa jàpp état bi mu am courage nangu ni nit di nga jéem waaye man ngaa jéem doo man ñu daal di taxawul tenir sénégalais yi langage de vérité kilifa diine it ñoom seen rôle ci lañ nekk boo xoolee déclaration bu mel ni bi sëñ Bass Abdou Khan def kooku ci rôle am la nekk parce que société bu tollee fii nit ñi sonn ah amatuñ solution li nga man rek mooy téye ndaw ñi ndaw ñi nag pour nga téye leen mooy da leen di mel ni lu leen tiital loolu stratégie la ci communication pour téye nit ñi mais buñ toppee wax bi au fond da ngay gis ne nag xaru la wala du xaru c'est discutable waaw.